tey jii bisu feet la tey dañ leen a war a dañ leen a war a jox warma ak gëdd bi nga xam ne moom nga moo tam kii itam looleem lu république bi am ci lu rafet ci lu taaru ci lu sell ci lu yell ci loo xam ne itam dafay mandargaal taaru réewum Sénégal dañ ko koy lalal ne nag kat lii yaa ko yeeyoo ba nga xam ne itam noonu ndax loo Sénégal moo ko bëggee nii ñu defe ko nii la ci taaru Sénégal di wane rek lii itam ci bisu mbégte ndax foofu la ñu toll ndax réew mi moo ko laaj réew mi noonu kon bu li amé ñu am itam lu melni té mu mënoon a demee neneen te suñu borom itam fégal ñu lolu kon dañuy delloo lépp xeetu delloo njukkal suñu borom la rek ak xamal itam li ñu may li kon nak li ñu may li dañ koy téeg suñu fukki loxo ndax buñu ko téeg suñu fukki loxo amana euh, itam du ñu réer du jeng duñu jélu ba li nga xamné ne moom moo euh, Khali un très beau spectacle ce défilé des chevaux du euh, ce détachement de la garde présidentielle euh, l'escadron monté donc avec les chevaux euh, c'est une parade extrêmement belle que vous voyez avec euh, euh, leur tenue rouge.